asalaamaaleykum. mu ne asalaamaaleykum mbooloo mi. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sent sant alaaji Thierno maa ngi lay ziar soxna si maa ngi lay ziar di leen jox seen yëguwaay bu baax dafa am témoignage bu ma bëgg indi ndax maa ngi dëkk waagu ñaay ñu dëkk ak Adja Ndeye Cheikh mu nekk suñu xarit mais mu am lu rëy lu mu fa def ndax dañu toog jigéen ne fa dëkk bi metti lool amuñu liggéey fu nee ñu fee dang-dang moom mu dem lijjanti 200 millions ñoo indi ko jox Adja Ndeye Cheikh jox jigéenu Biscuiterie deux cent millions voilà ñu def financement jigéen ñi di liggéey am jom tubarkalla di fay. su leen ko waaye Ajaratu Ndeye Cheikh jëkkal madame Sow laa ren tubarkalla. deux cent millions yooyu liggéey nañ si fay Biscuiterie yëpp mën nañ ko seede ba si monsieur le maire ñu fay ba mu jeex ñu toog di wax mu ni bii trois cent millions laa leen indi Biscuiterie yëpp yóbbu ñu koy gërëm di ko ñaanal. ñu ni ko day seet yi lan la mu kenn mu lay moom a taal. tàccu leen waay di waay jaabi kun fa yekkoon vite fait bien mu ni kenn mu lay moom a branché. dëgg la de. ñëw naa fi ñëw naa xam ñëw nañ grand théâtre maanaam ñu wane la ñun ñëpp gis nañ la waa benn tali waa ñaari tali ñëpp nag xam nañ la gis nañ la. ñu ko lay gërëm di loo ñaanal ci turu. Adja Ndeye ndax moom moo ni kii mooy sama sëriñ. kii moo ma tey gannaaw yàlla kii laa yaakaar. kii moo ma branché moo ma taal moo tax ma am lu ma leen indi ñëw jox leen kon nag dan lay ñaanal yàlla sa taxawaay yàgg sa 40 yi yii yàlla nga ko feete mu nekk 200 ans laa lay ñaanal nga yàgg fi loolu tawéet loolu loo bëgg yàlla na ko yàlla yombalal ndax kat ñoom li ngi ñu yombalal jaale ko si ajaal ndey seex mii wàcceel ñu coono jox ñu liggéey ñuy liggéey na ku ne xam ne dëkk bi metti na ku ma yëkkati 200 millions jox leen ngeen liggéey kooku bëggul ngeen dee bëggul ngeen dof barke nañ bi wallaay la yaa xam loo tàccu leen ko waaye may leen ko loxo mu la mu lay sëriñ bi lay bakk lay ñaan Ceerno ñun waa Benkel dañ lay ñaan man de xaw ma kan waaye man Adja Fatou Diop moom sa taalibe la man moom jóg naa si yow. Ah, man moom jébbalu leen seen loxo waaye tàccu leen waay sa gannaaw. waaw waaw foo nu wóoree di ñëw foo nu soxlaa ñu taxaw. loo nu sant di def. loo nu tere ñu ba. ndax lu waral loolu dañu gis preuve. dëgg la waay preuve à l'appui ñun ay mag lañu duñu wax lu dul dëgg. wallaahi duñu seede lu dul dëgg. dëgg la te nag lu ñu kenn tituñu kenn. dëgg la bu ñu gisul woon lenn duñu ko wax waaye dañu gis. dëgg la sàcc bee bañ maa ngi nii sàcc baa ngi waajaa ngi loolee bañ te waajaa ngi. barke nit waajaa ngi. waajaa ngi la di bañ. waajaa ngi waaye waajaa ngi barke nit de. barke li mu def ma gis ka tax na ma gëm nit waajaa ngi barke si dinaa ko xamal ñoo ngi sa gannaaw tey ba suba guddi bëccëg foo nu woy nu ñëw ni marxuma la man rek waaye man ak sama waa kër ak waa Biscuiterie ak waa benn tali ak waa ñaari tali ñëpp na tàccu leen waaye tàccu leen na ko def bis bu mag na ngeen ko waaj def ko bis bu mag tubaarkàlla bu ko defee sëriñ bi ñëw fa tubaarkàlla tuubal sax ci ne fa ne nag tubaarkàlla macha bu ko defee ngeen def ko bis bu yaatu def ko bis bu alaa dawme ñu xàll ko ba mu yaatu sëriñ bi lewit bu leen ko fàtte tamit ah fële la ca Cissesse incha allahu rabbi consultation gratuite sëriñ bi woo na ñëpp tubaarkàlla Maxtaar kon bu ko defee kon dañuy dugal waa international bisimilah kon ñu daal di dugal ñi nga xam ne ñooy waa international tubaarkàlla Adama Virginie ah ñu daal di nag joxe li nga xam ne ndeysaan ñoom itam ñu joxe mooy seen cadeau incha allah waaw ndax defe naa ne nag ndeysaan Virginie Adama Traoré ndeysaan nekkatul koo xam ne ku ñuy présenté la ndeysaan tubaarkàlla macha allah waaw ñoom ñoo ci ëpp solo ndax dañuy jàkkaarlook sëriñ bi waaw mu mel ne nag ajaratu nday seex ñëwal bu baax tubaarkàlla waaw kuy jël kàddu ndax defe naa ne aadamaa ngi nii di taalibe sëriñ bi ndeysaan nekk fële ca France ñu déglu ko tuuti rek rapidement mu jàkkaarloog sëriñam tubaarkàlla joxe ziaram addiyam tubaarkàlla ci kadoom ci anniversaire bi jërëjëf Adama Moule alhamdulilah rabbil alamin waaw yokkal ko son tuuti rek maa ngi nuyu mbooloo bi yépp ñi fi nekk ñépp maa ngi leen di nuyu leen di ñaanal jàmm di jiital nuyoo bi ci suñu kilifa di suñu yaakaaru tey ak ëllëg di suñu lépp maa ngi koy ziyaare bu baax a baax di ko ñaanal jàmm ak njaboot bi di nuyu suñu yaay ajaratu mama Mariama ñu koy ziare bu baax di ko ñaanal jàmm bu bari ak njaboot bi di nuyu princesse la reine ak euh, suñu prince yëpp maa ngi leen di ziare di leen ñaanal jàmm euh, di nuyu suñu bàjjen bu baax bi ajaratu ndey seex di ko ñaanal jàmm bu bari bari bari yal na ko yàlla bàyyi ak suñu sëriñ ba ci biir aljanna mu yàgg ufal ñu ay prince yu bari nag macha allah ñu ngi lay ñaanal jàmm bu bëri bëri bari nga yàgg fi te wér si barke suñu sëriñ di eh, di nuyu mule mule yépp ci kaw ba si suuf maa ngi leen di ziyaara di leen ñaanal jàmm di nuyu eh, daarulaay bu international macha allah suñu héro yi borom xolu or yi borom xolu jamaay macha allah kenn du ñoom dañuy taxaw suñu sëriñ bu wootee ñu jóg taxaw ñoom ñépp macha allah yal na leen yàlla fay seen xol yal na leen yàlla bàyyi ak suñu sëriñ ba ci biir aljanna yàlla dàqal leen seytaane ak musiba ak balaa si pexe noonu ak yàqkat yi si barke suñu sëriñ bi ñaanal eh, national bi Sénégal bi yépp ñoom ñépp maa ngi leen di ziar di leen ñaanal jàmm ñoom aussi ay héros lañu dañuy toujours ñu ngi daw guddeeg bëccëg su matin midi soir gauche à droite pour jàppale suñu sëriñ mais nag suñu sëriñ mënuñu ko fay lu ñu monta di def suba ba ngoon jot mënuñu ko fay voilà mënuñu ko fay dañ koy bàyyi ak suñu borom bi moom euh, am fay mu fay ko fay yi gën ci fay yi bàyyi ko ak njabootam bàyyi ko ak taalibeem yi bàyyi ko ak monde entier bi mu yàgg fi tawér yàgg jàppale jaam yi parce que nag vraiment euh, bu ñëwul woon dina métti monde bi dafa naroon a sécule moom wante ñu sant yàlla bu baax di julli si yonant bi di leen wax jërëjëf jërëjëf léegi nag voilà ma bëgg joxe addiya euh, waaw nee na dafa bëgg a joxe addiya Daaru Laay international muy seen cadeau ndeysaan ci anniversaire bu sëriñ bi macha allah international. ñooy joxe seen cadeau. yéen a ngi jox sëriñ bi lu mën a joxe. waaw waaw bisimilah. nee na lii 2 millions la ñaata. nee na lii. 3000 euros la lii. nee na kii 3000 euros la international. 3050 euros muy 2 millions. ci waa international. waaw waaw. nee na moom moo ci teg deux cent cinquante euros yii. tàccu leen Adama Virginie Traoré. muy addiyam di mbule mbule bu mag ndeysaan bëgg ala Thierno Moule. sëriñ bi nee na yàgg ga koo def sëriñ bi nee na defati nga sama yàgg nga koo def waaye jox leen sëriñ bi lu mën a joxe xaru tabaski yi ku ma jox xaru tabaski ay euro la la ci tegal. billaahi dëgg la maa la wax loolu. nag ndeysaan. Maxtaar léegi. dañuy dugal dañuy dugal waa waa national. waa national tamit ñu ngi fi waaye nag alaa Ceerno bu lay sow tubaarkàlla comme ni ma leen waxoon rek ndawalu guddi la képp koo xam ne tubaarkàlla xam nga 5 heures jot na léegi ñu bëgg a dugal waa national waaw jëwrin ku dugal nag da defe ne yow rek a daj saan waaye ñëpp a daj ndeysaan tubaarkàlla jëwrin ak Virginie Traoré kon nga dugal jëwrin ak seen islam mooy Maymuna di doomu ndeyam moom it jóge fële ci Espagne moom it boobu ba léegi mi ngi ci kër gi di jàpp ci décor yi ndeysaan ah di liggéey liggéey bu rafet ci kër gi macha allah Matar bala ñoo dugal bala ñoo dugal waa national euh, Mouhamad Youssouf Moulé mii waaw xam nga ni sëriñ bee ko tuubal dëgg moo ko tuddee yonent bi dëgg la moo ko may moo ko moo ko soxna moom daal lépp lu baax lu ñuy defal nit ku baax sëñ bee ko ko defal ci gàttal ndeysaan nee na ah. dafa bëgg a jox sëriñ bi moom itam haddiyaam ndeysaan mooy mooy kadoom ci bis bi donte international la bokk waaye li ko sëriñ bi defal nag ah. defal ko ñu bari de ah yow kay Yusufa Mule asalaamaaleykum bismillah kër yàlla kër yone sala salaam ak dégloo mule mule yi këru ak dégloo kër islaam kër yokkute këru bànneex allah sama sëriñ maa ngi lay nuyu la jox sa wàcc waaye di la ñaanal jàmm macha allah na la yàlla gën a taxaw aar la sàmm la may la at jinne yi di la wax joyeux anniversaire ñu fekk ay ati ati at macha allah. dëgg la nga dégg ay maami maami maam. parce que njaboot yëpp màgg. macha allah yàlla teral leen aar leen macha allah ba ngay gisee set set macha allah. may nuyu prince yi ren su suñu yaay Mariama ak sa goro yi macha allah maa leen nuyu leen jox seen waay mën leen ñaanal jàmm macha allah di nuyu international Sénégal bi. dëgg la maa leen nuyu leen jox seen wàccuwaay leen ñaanal jàmm ak képp koo xam ne soppee alaaj Thierno Moule Sow nga rek. maa lay nuyu baax baax dina jox sa wàcc waay di la ñaanal jàmm macha man la Mouhamed Youssou Moule mënuma laa fay macha allah yow mi nga génnee ci lëndëm dugal ma ci leer macha allah jox ma tur bi gën ci tur yi mooy Mouhamed yal na la yàlla fay sa xol nga dugal ma ci diine lislaam mënuma laa fay macha allah yal na la yàlla fay sa xol taxaw nga ma suba ngoon bu dégg bëccëg lu ma xam ak lu ma xamul macha allah nga tànn ci mule mule yi jigéen bi gën ci mule nga may ma ko soxna macha allah la yàlla fay. loolu moom loolu moom yàlla rek moo la koy fay. te dina la ko fay incha di ñaan yàlla yàlla may ñu njaboot macha ñu jox la yëpp tur bi ndax ñun mënuñu laa fay macha allah soxna Rama mu ngi nii toog macha allah di kontaan bu baare ci yow macha allah di la bëgg a jox nag sa addiya ndax mënuma laa fay macha allah dañuy jéem rek li ñu am ñu séddoo kook yow ngir jàmmi rasulullah sallallahu macha allah macha allah macha allah kontaan nañ ca bu a baax sunu kon bu ko defee. alxaaji Sofi Dia. ndeysaan mii nga xam ni. tubaarkàlla. goro sëriñ bi la. mooy goro sëriñ bi macha allah. dëgg keroog nag wax na wax bu daw yaram. dëgg nee na man. bu leen ma xool bëtu goro bu leen ma xool bëtu papa dee leen ma xool bëtu taalibe damaa bëgg sax su ma ñëwee fa taalibe yay toog ngeen bàyyi ma ma toog rek fa ma yem te xam ni taalibe laa waaye sëriñ bi ci xam teraangam ci bëgg nit ci sopp nit ci xam dayo bi nga xam ne moom la goro am fu mu toog day bëgg alxaaji soofi ja mii toog ci wetam alxaaji soofi ja sëriñ bi moo la bëgg a jox moom itam kadoom muy muy muy barkeeloom di hëddiyam ci yow mi nga xam ni yaay sëriñam gannaaw ba nga nekkee gorom jërëjëf ah mbokk yi ngeen gis loolu defe naa ne nag tey Sofi moo ñëw di bàyyi ak dégloo ak dégloo ngir ngeen xam li ñuy def mi ngi nag ci bind Sofi Dia Moule Sofi Dia Moule loolu bàyyi madame Sow laa ren tubaab kàlla moo joxe kado euh, euh, bi sëriñ bi tubaar tubaarkàlla ndax dégg ngeen ko mu ne moom doxewul goro waaye taalibe la doxe alaaj soofi jaay na goro gi jënd ko ak taalibe te loolu dafa am solo tàccu leen ko bu baax a baax a baax a baax baax ñu jox ko kàddu tubaarkàlla macha allah jërëjëfati bu baax waaw maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp euh, di souhaiter suñu sëriñ bi joyeux anniversaire di ko ñaanal mu dund atu jinne yi yàlla bàyyi ñu bàyyi ko suñu kanam moom ak sécurité mi mook taalibe mi mook am di jaamam yi mook dëkkandoo yi euh, mook monde entier parce que ñëpp ko soxla vraiment man desalu ma dara defal na ma lépp manqué wu ma dara jooyu dara waaw instant bu ne maa ngi ci YouTube bi mooy sama yitte du leneen à sama liggéey maa ngi ci YouTube bi mooy sama yitte du ma yëgal sax lépp YouTube bi laa ko yëgee ma dagg ñëw loolu moom di sant ñëpp di gërëm ñëpp. di leen wax ne desalatuma dara. wallaay ndeysaan manqué wu ma dara tàccu leen baax a baax a baax a a baax waaw ma dara. wallaay ndeysaan sant sant yëpp. wallaay waaw sant naa soxnaam. ndeysaan sox man moom war a sant sax waruma sant soxnaam. parce que lépp lu ma soxnaam defal. wallaay ci moom la jaaree. wallaay soxnaam liggéeyul. demul fenn fi ñu ko toog loola ko sant moom lay def kon lu mu am jox ma ko ci barke kii la ko amee dëgg la waaye yaa ko re loolu rek laa jëloon sànni jërëjëf macha allah jërëjëf alxaaji Sofi Dia kon bu ko defee maxtaar dañuy njëkkanteeg waxtu wi rek ah. jëwrin ajaratu xadi mbuub gisuma ko maxtaar sama yaay laay laajte fu mu féete moom anamu ajaratu xadi mbuub maxtaar ah, <laughs> waaw kon bu ko defee dañuy dugal a maxtaar <laughs> maxtaar kon bu ko defee dañuy dugal waa daarulaahi national waa daarulaahi national ñu ñu jox kàddu gi mama xadi baa ngi fi waaw ah jëwriñ waaw kon xam naa ne dana yaat waaw ñu jox kàddu gi jëwriñ alseeni silla mi nga xam ni a chaque fois waa daarulaahi national bu ñu amee lu ñuy jébbal sëriñ bi ak lu mu mën a doon moom mooy jël kàddu gi tabaarakallaa wax li ñu war a wax lépp euh, ànd ak jëwriñ yi ñoom jëwrin gàllaay ak ñoom mama xadiba ak jëwrin yi fi ne yëpp macha allah ñu ñu ñu ñu jébbale li ñu nga xam ne moom la di jox sëriñ bi jëwrin alseeni sila mu lay bismillah jërëjëf may leen ko loxo jëwrin national alseeni sila tàccu leen bu baax a baax a baax maximum de bruit ndax nag dafa yàgg ak sëriñ bi tubaar kàlla ndax defe naa ne nag tubaar kàlla léegi alfa seeni boo ko xoolee defe naa ne wuute naag jamono bi ñu koy xool tubaar kàlla ak léegi boo ko xoolee ci vidéo yi yàgg yi. Matar ko gis mu doon Matar waaw. nga may ma rek 30 secondes. ayca <laughs> bismillah. ma bëggoon wax mbooloo mi. ndeysaan. que boo gisee ku ñuy wax ku ku fidèle. dëgg ku loyal. ku am yar ku discipline. ku bëgg sëriñ bi. moom mooy Alseyni. tàccu leen ko bu baax a baax a baax a baax a baax a baax. ah oui dama xam nga yàlla moom da ngay seede sa aqulay taala. lu yàq dëgg la nag. parce que Alseyni. waaw defe naa ni ñun ñu nekk ci kër gi. ndeysaan. moo fi gën a yàgg. ku ñëw fi ko parce que man maa ngi bëgg a def juróomi at ci kër gi. mais Alseyni defe naa mi ngi bëgg a def ak Serigne bi lu mot ans donc Oustaz ma bëgg ngeen mayal ma Alseyni loxo bu baax a baax a baax a baax. waaye nag Alseyni nii la mën a mel. parce que ku jaar ci tànk Thierno Moule Sow. nii rek nga mën a mel. wax la sa jikko. waaw vraiment euh, mbégte la aussi comme dañuy liggéey ak moom vraiment ñu sant ko gërëm ko def témoignage bi ci kanam ci kanamam kon Alseyni. jërëjëf Moustapha waaw jërëjëf Moustapha gis nga li ngeen wax ci Alfousseyni am na waaye du Alfousseyni Cerno mii la olof Jaay dafa ne wax ma ki la yar ma wax la si jikko Cerno la jikko ju ne ci Cerno moo ne ci Alfousseyni Alfousseyni baax na Alfousseyni yaru na. Alfousseyni posé na. te dina wax nànk dina wax nànk dina dox nànk lépp ceerno la kon gàcce gàllaama yoo ceerno bu lay soow yow ko yar yaa def loolu ci Alfousseyni yal na la yàlla bàyyi ak moom Alfousseyni yal na la yàlla lafal cat ku la xaar yal na xaddi yal na la yàlla bàyyi ak sa baay ci barke yonent bu tëdd bi doo ko rëccu ah. fi nga teg sa tànk fi nga teg sa loxo bu ko teggi teg ko fa boo yàlla bàyyi la moom doo ko mu sëri ci sa dund aduna seytaane yal na bu mu la faagaaga bàyyi la sa mag ji sa rak sa mag ji sa xarit ji sa papa ji sa nijaay ji yal na la yàlla bàyyi ak moom si laajaa bi ndeysaan ngi noonu lu mu fekke lu baax sànni ci aw jaabalaas yeggaleel asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakaatu maa ngi nuyu mbooloo bi yëpp di jiitoo nuyoo bi suñu sëriñ suñu wasila El Hadj Thierno Moule Sow roi de la médecine traditionnelle du monde le king of the le maréchal borom botu allah muhammadu borom baatu baatin borom kum fayakum borom samsi samarusi pour jinnay macha allah di nuyu la princesse madame Sow la reine di ko ziar bu baax baax di ko ñaanal jàmm di nuyu prince Moule le futur des rois di ko ziar bu baax baax di ko ñaanal jàmm gudd fan bu ànd ak wér bu yaram yàlla yàlla romb génération yëpp si barke yàlla ak yeneen tibi ak ñett ceer na mu lay sooy di nuy prince de Mouhamadou Rahim Moulay macha allah di ko ñaanal gudd fan bu ànd ak wér yaram yàlla yàlla romb génération yëpp si barke yàlla ak yeneen tibi ak ñett mu lay sooyu di nuy ajarat Mariama Camara di ko ziar bu baax a baax di ko ñaanal jàmm di nuy soxna ummi di ko ziar bu baax a baax di ko ñaanal jàmm di nuy eh, papa di ko bu baax a baax di ko ñaanal jàmm di nuyu mbokku jullit yi yëpp di leen ziar bu baax baax di nuyu waa TMS di nuyu la sécurité macha allah di nuy association na Thierno Moule Famille Daarulaay pour le développement et l'entraide nationale di ko dalee si jëwriñ bi Mamakat Jataba mu ngi fii Takaw macha allah Mamakat Mbuub mu ngi fi macha allah euh, Mama euh, Tunkara sànq la fi jóge euh, macha allah jëwriñ Jilaay Sew si mu ngi fii Takaw ak mule mule yi ñu fi teew yëpp bàyyiwuma kenn macha allah. di nuyu si association Thierno Moule Family Daaru Laay bu international di ko dalee si jëwriñ bi jëwriñ tonton Fabakary Sonko jëwriñ tonton so Seck Oumar jëwriñ tonton Fabakary Sonko jëwriñ na Galasso jëwriñ soxna Fama Sow jëwriñ soxna Tikel Sow ak Moule mbule yëpp bàyyi ma kenn surtout ñi nga xamante ñoo ñoo leen di représenté fii ku mel ni Adama Visni Traoré macha allah ku mel ni aussi euh, Mohamed Youssouf Moule ku mel ni aussi euh, Maymouna si ku mel ni aussi soxna Aïssatou Sow macha allah ak mbule mbule yëpp bàyyi ma kenn macha allah di nuyu aussi association Sénégal bi di ko dalee si jëwriñ bi soxna Mariette Mané di nuyu jëwriñ tonton Alassane Silla ak mbule mbule yëpp si Sénégal bi macha allah di amati kontaan ak mbette di baax a baax di ñëwaat si la TMS bi si bis bu rëy bi macha allah bis boo xam ne bis spécial la donc euh, bis boo xam ne ne vraiment eh, ñu mbule mbule yëpp dañ si am kontaan ak mbette donc àdduna bi yëpp xam naa ne am nañ kontante am bétte ndaa bis bu Thierno Moule soo si dellu see macha allah loolu àdduna bi yëpp war nag ko sant di ko gërëm ndaa jàppal na leen si zaahir ak si baati macha allah donc si loolu noonu tey ñëw fii daje pour vraiment juste ak dégloo waay laay war a sóoli ak dégloo déglu leen joxe leen tuuti cër ngeen déglu macha allah bi mu ne ngeen déglu macha allah tey ñu ñëw fii fête anniversaire am donc li nga xamante c' la première fois di ko féete donc soo gisee noonu ko féete la première fois c' est pas hasard euh, parce que soo xoolee yeneen bi sax euh, bu mu amee 40 ans macha allah si la yàlla joxoon mission bu nga xamante moom la ko yàlla jox Thierno Moule Sono macha allah yàlla xaarul loolu macha allah euh, balaa mu am 40 ans macha allah wone na woo wone na boppam si àdduna. macha allah adduna yëpp aussi teg nañ seen bot gis nañ lu muy def lu leer. tàccuwaat leen sëriñ bi baax a baax a baax a a baax. mooy mission bu nga xamante ne moom la ko yàlla allah mu si jàppale jaamu yàlla si zaahir ak si baatin ndaa vraiment euh, jamono yàlla si ginnaaw ñu yëpp amoon nañ ay jinne jinne dañ ko doon dégg rek ay jinne jinne mais bu yàlla wàccee ala ci na Moule Sow si la ñu xam ne ne lan mooy jinne tànk lay jinne euh, mun a nekkee si nit parce que ñun dañoo jàppoon ne jinne yi ñu ngi si àll ba. te léegi nag àlla yëpp bàyyi nañ ko macha allah tabak nañ ko léegi jinne yi nga xamante ne ñi nekkoon si àll bi yëpp ñu ngi ci biir nit ñi di dundis nit ñi di leen di yàqal eh, di leen trouble macha allah donc jinne yooyu noonu amul kenn ko ku leen munal dara bu dul alaaji Ceerno Moule Sow moo tax yàlla wàccee ko pour mu mun a wakal ak jinne yooyu noonu jinne yooyu noonu ñu bokk si njaboot iblis macha allah ngay gis ne vraiment ambassadeurs yu bari yi nga xamante ay iblis lañu macha allah sëriñ bi terrasse na leen tuubal leen dugal leen si dina lislaam donc euh, suñu commencé lim du jeex ndax jinna siyaat yi nga xamante jàpp na leen jinna iblis loolu moom bari na macha allah mais les jinna euh, très remarquable mooy premier ambassadeur iblis deuxième ambassadeur iblis troisième ambassadeur iblis quatrième ambassadeur iblis jinna yooyu noonu macha allah euh, ay jinna yu mag lañ jinna yi xamante dañoo sës si iblis donc loolu noonu macha allah loolu sëriñ bi rek lañ ko may Cerno Mulay rek lañ koy may macha allah muy jàpp jinna di ko tuubal di toog di waxal ak jinna mu laajala yow la kan mu ne man la jinne eh, noo tudd mu wax ko turam ñaata at nga yor eh, mu wax ko lu tàngat dugg kii mu wax ko loolu si alaaj Cerno Mulay soo lañ ko tëggee macha allah yaakaar naa dootuñ ko dëggatu feneen ndaa ku ku ko def rek xamal ne photocopie la donc original moo nekkee nii moom la ko yàlla chargé insay ni jinna bu yàlla sàkk si na bi su la ko am la nekk donc ngeen gis na ne vraiment nit ñi aussi sonn nañu loolu macha allah ñi nga xamante vraiment dañoo nekk boo extérieur sëriñ bi mu ngi toog fu mu toog fii di jëflante ak ñoom ñi nga xamante ay jinna seyaatin di leen dugg macha allah mu toog fii di tuubal jinna yooyu noonu macha allah dugal leen si dina lislaam vraiment ñu ñëw fii di ko liggéey kon loolu eh, yàlla rek moo koy fay macha allah donc si loolu aussi ngeen gis na ay doom yi xamante ñoom tam nit ñaay macha allah ñoom tam ñu am xam Euh, vraiment di rôle nit ñi di leen di troubler macha allah di leen di yàqal di leen di rëy yooyu yëpp sëriñ bi de taxaw macha allah lutte contre loolu euh, jël doomu yooyu noonu nga xamante dañuy lekk ay nit tuubal leen dugal leen si dina lislaam ñu bàyyi def luy bon macha allah donc loolu tam vraiment gis ngeen ne loolu tam lu leer nañ la donc si loolu passé aussi donc euh, ñu dem si social social aussi gis ngeen ne vraiment si Sénégal kenn dak ko social macha allah moom moo moom rek si médecin traditionnel ki génne cent onze millions macha allah def ko si askanam mu ne lii defuma ko ngir dara defu nga ko ngir len bu dul liggéey suñu borom liggéey suñu borom moo ma taka eh, ma def lii macha allah sokaloo ma merci sokaloo ma jërëjëf macha allah vraiment mu développé ko jënd ko ay dund yu bare bare seddale ko jaamu yàlla yi macha allah ko loolu eh, vraiment yàlla rek moo koy fay ndax sëriñ bi am na taxawaay bu am solo si Sénégal si àdduna macha allah ngeen gis ne aussi hôpitaux yi day am ay néew yi nga xamante vraiment gis seen borom donc ñu garde leen si morgo yi saay bu jotee pour ñu denc leen loolu saay bu ko sëriñ bi yegee macha allah dina def délégation dem foofu et vraiment participer si loolu ndax tam si jaamu yàlla la ngeen gis ne aussi sëriñ bi yemul foofu kilifa diina bu xewale amul xaadir amul tijaan amul laayin amul ñaaseen macha allah sëriñ bi day def délégation dem ziyaare yi kon loolu yëpp gis ngeen na ko macha allah sëriñ bi noonu lépp la fi nekkal même chrétien yi sax gis ngeen ne vraiment sëriñ bi mu ngi leen di jàppale. macha allah moo tax ngeen gisoon euh, allez comment dirais-je euh, euh, Abbé Seck macha allah mu nekk kilifa bu mag. macha allah moom tam sëriñ bi moo ko jàppale. macha allah faj ko boo mu wér àdduna bi yëpp teg seen bot mu si jàmm ak salaam. kon sëriñ bi lépp la fi nekkal macha allah. kon mission bu nga xamante moom la yàlla jox donc moom rek la yàlla jox macha allah. ngeen gis ne aussi lu mu fonkee waajuram di ajaratu Mariama Kamara macha allah. Eh, tàccu leen ajaratu Mariama Kamara ndeysaan tubaarkàlla. jërëjëf lépp luy doom war a defal yaayam macha allah sëriñ bi defal na ko yaayam. macha allah eh, kon loolu tam vraiment c' est quelque chose à saluer parce que soo xoolee si moom rek vraiment soo royee si moom rek vraiment lu baax rek ngay def te lu baax rek ngay am aussi. kon loolu tam sant yàlla la macha allah. donc non sans plus tarder dañu ñëw si bis bi. Eh, ginnaaw bu ñu nee tey sëriñ bi day fête anniversaire am donc tombé mu am quarante ans jinne yi régler nañu eh, eh, mois yàlla si ginnaaw macha allah mu ne saa bu sëriñ bi amee 40 ans am-am bi day gën a yokku baatin bi day gën a yokku macha allah donc vraiment loolu nekk kontaan ak mbégte vraiment gis nañ ne vraiment mule mule yi taxaw nañ bu baax a ñun noonu association Daaru Laay nationale macha allah ñu yëpp dañoo booloo ñu mànkoo ñu nekk benn bokk ndey ak bàyyi ànd chaque jour sëriñ di liggéey yàlla ak yeneen bi macha allah association bi noonu am na association yu bare bare mais association Thierno Moule Sow boobu kenn la si àdduna bi parce que association bi dañ ko fondé ak baatin ak xam-xam bu sell macha allah moo tax képp ku dugg foofu jafe-jafe boo amoon macha allah loolu yàlla di koy saafara si barki dëgg la ñu tàcc leen ko waay am na yu bare bare macha allah balaa ñuy dugg si association bi dañoo amoon ay jafe-jafe ñii si wàllu sëy ñii si wàllu commerce ñii si wàllu eh, liggéey macha allah mais bu ñu duggee vraiment sant yàlla bu baax julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que Serigne ak kërim bokkul ñun noonu Serigne bu ñu yor. macha allah Serigne leen ko bu baax a baax a baax a baax. mu ne Serigne ak këriñ bokkul. eggalal Serigne ak kërim bokkul. waaw waaw bokkul de yor. alors am na am na yu bare bare yi nga xamante dañoo am seen sëriñ seen bopp saa su leen méttee du leen ko du leen ko mun a fajal mënuñu laa fajal ñun noom macha allah saa bu ñu jàkkee jàkkale ñu wooyee suñu sëriñ bi ñetti yoon sëriñ bi dina ñëw taxaw wàlluñu fajal suñu aai kon kooku alaaj Ceerno Moule Sow kenn mënu ko fay ah, macha allah moo tax ñun taalibe dañ koy safoo di ko tiitaroo macha allah vraiment eh, di topp ndigalam di bàyyi ay teram vraiment ñu yëpp vraiment eh, benn lañu Euh, association nationale internationale senegal bi yëpp ñu yëpp suñu bugg-bugg benn la suñu góom-góom benn la macha allah kon tey noonu ñu naw ah euh, ci anniversaire bi macha allah donc ñu mule mule yëpp vraiment ñu waxtaanee boo ñu tënk euh, vraiment kenn ku nekk am lu muy joxe mu dajale boo mu moto un million deux macha allah ñu débloqué ko un million cent un million boobu aussi ñu jël sept cent mille kooku xam nga ne saa bu sëriñ bi xewalee fii day financé ay million ñu ne ko noonu tey noonu bis anniversaire a macha allah loolu teggil nañ ko loolu vraiment ñu jël 700000 bi ñu def ko ci dépense. dëgg la 500000. wallaay ñu jébal ko comme cadeau. dëgg la donc vraiment di ko xeeb loolu na macha allah. dëgg la macha tàccu leen bu baax a baax a baax a baax a baax. ndeysaan euh, loolu am na solo. vraiment mun naa jokk euh, yeneen joor yi aussi xam naa ne du ñàkk euh, moment Khadija Ba mu ngi fi. waaw ajaratu xadiba ajaratu xadiba nee na nee na cent mille francs yi cent mille francs yi jëwrin mama aja xadiba moo la ko jox moom itam muy kadoom sëriñ bi nee na yàgg nga koo def ñu ngi lay sant di la gërëm ndeysaan macha allah ne ko mu ñëwee ni ñëwal kaay asalaamaaleykum xalif général maa ngi lay def happy birthday to you maa ngi lay sant di la gërëm di la bàyyeek yàlla ak yonent bi xam naa ne eh, anniversaire anticipé ngay def incha allah maa la jox cinquante millions pour sa eh, nga jënd ka gâteau suba nga anticiper sa anniversaire di la sant di la gërëm. waaw kooku nag mooy soxna Astou Gueye moom it weeru koor gi ba tey mi ngi ñëw te gis ngeen ko ni mu mel moom it saa yoo tuddee sëriñ bi sax ndeysaan mu daal di tur xéewal ndeysaan waaw moom it ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm macha allah waaye nag ndeysaan liw bi liw bi ngelaw li tubaarkàlla. waaw waaw soxna Sougay mama mama Fatou Ba. Matar mama moo la jox lii. moom moo joxe loolu moo koo déyanteel sànq. ajaratu Xadi Mbuub Matar wuyul wuyul foofu. ajaratu Xadi Mbuub tubaarkàlla jëwrin national. tegal nii tubaarkàlla tegal nii allah waaw bi ak seeni joxel bi tubaarkàlla macha allah acca demal ci ajaratu xadi boobu soxna maam say faal jërëjëf soxna maam say faal mama Khady waaw nee na oustaz bu Côte d'Ivoire moo la jox cinquante mille yi cadeau oustaz Malick bu Côte d'Ivoire wa Abidjan moo ajaratu Khady Mbuub ne ñetti ceerno alaaj Moule Sow yaa ngoog. nee na ñetti Thierno Moule Sow yaa ngi noonu. nee na benn ngi noonu benn Thierno Moule Sow. waaw ah, génneel génneel defe naa ne lii nag sëriñ bi moom min na ko moom. waaye ndeysaan. nee na kooku nag mooy jëwriñ. ñaari Thierno Moule Sow. tubaarkàlla ajaratu xadi mbuub. tubaarkàlla. ñetti Thierno Moule Sow seex ñoo yegg seetoo. ñetti jës meer ñoo jàkkaarloo it tubaarkàlla. Ah. waaye. nee na moo ci teg 100000F yii. na moo la jox ñetti jës meer yii. muy ñetti ceerno ak cent mille na def sëriñ bi nee na yàgg nga koo def nee na yàlla na ko gën a man foo toll loo yéene rek yàlla na la yàlla may lu ëpp sa yéene sëriñ bi nee mi ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal yàlla nee na yow jàmbaaru fàq tëddëm nga yow ajaratu xadi mbuub gaynde ak allah ceerno mu la saw nga tudd léegi nee na léegi gaynde ak allah ceerno mu la saw nga tudd waaw moom jàmbaar la waaw waaw jëwriñ jëwriñ ku ba tey rek ñuy gën di wax rek ci baax baaxi alaaj Thierno Moulay Sow ndax defe naa ne tubaarkàlla taalibe yi bu ngeen gisee xalta xalta jii ñuy def ci kawam tubaarkàlla fu ñu ko woo wuyu am sëriñ boo xam ne foo ko woowee mu wuyu nag dafa yombul tubaarkàlla alaaj Thierno Moulay Sow boo nekkee ci njàqare nga xam ne tubaarkàlla guddi gi na selaw waaw Matar tubaarkàlla ngelaw li la kay di mama mama Tunkara moom ah, jëwrin mama Tunkara Tunkara seen naa ko fii léegi moo moo joxe bii moom itam jëwrin katabu yanj bii jëwrin mama Tunkara moo ko joxe ngeen tàcc ko bu baax a baax a baax a baax jëwrin mama Tunkara di nit ku baax bëgg àlaa ceerno mu lay sow soxna nday jaxate xaritu cocoo nag ndeysaan Matar waaw soxna nday jaxate nday jaxate ah jaxate kaba waaw waaw tubaarkàlla waaw gis ngeen kooku nag kado boobu la joxe. ah soxna Marème Sall. soxna Marème Sall Marème moom it moo joxe kado bu yaañ bii moom ndeysaan ànd ak ay dàll ak lépp la àndal macha allah mat maa ngi jéggulu ci kàddu yi sëriñ bi dama xam ni moom alxuraan rek la bëgg moo tax ma jox ko kaamil bi macha allah. jërëjëf ñu ngi kontaan bu baax di am mbégte ndax gisuñu woon kado bi nga njëkk a joxe moo tax ñu jox mareem fay sàll mu doog a dugg léegi ñu jox Marème fay kàddu gi rek kaay taxaw nii Marème tubaarkàlla defe naa ne kii seen kër usine lañu woon waaye alaaj coono mu lay sowal leen jële ci jafe-jafe ndax tubaarkàlla defe naa ne. jinne rakkam boobu noonu keroog bi ñu ko jàppee jàpp bu magam bi tubaarkàlla ci la dégg alxayri kon tàccu leen bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax ay ci bisimilah asalaamaaleykum sang bu tedd bi maa ngi lay nuyu di la ziyaara di nuyu suñu yaay ajaratu Mariama Kamara mu ngi lay nuyu di la ziyaara bu baax a baax di la jox sa wàcc waaye man ci sëriñ bi aw ma fayam Ceerno Moulay Sow dafa ma dimbali dimbali lépp lu tax si man Ceerno Moulay Sow dafa may taxaw fu ne moo tax boo dee ne dañuy xaar dañuy woo ñetti Thierno Moule pour mu ñëw wala du déedéet léegi Thierno Moule bala nga ko woo sax mu ñëw taalibe bu dëgg gëm bëgg dëgg wallaahi doo jàq doo jaaxle man sëriñ bi mosuma jënd volcan moo ngi ni mosuma jaay volcan mosuma jaay vite fait moom mamaa xadim di wax si suba dafa mel ni man la doon waxal parce que dimb dama toog di ko wax sama gëm ak sama bëgg ak sama dëggu si sëriñ bi moom ma tax ma yegg fii ma yegg weeru koor laa fi ñëw weeru koor laa ñëw lépp ci weeru koor bi la ci weeru koor la sama aajo fajoo te ci weeru koor laa ñëw kër alaaj Cerno mu la saw moo tax weeru koor fekk na ma ma am jëkkër de mais dama ne damay jaayante ñëw ci weeru koor bi parce que su ma ñëwul du ma gor su ma ñëwul ci weeru koor bi du ma gor ma ñëw ci ay fan li ci des ma nekk sama jëkkër ma dem sama jëkkër Kaolack mu ne ma man de bëgguma nga nawet bi fekk ma Kaolack ma ne ko man mu mule laa te man kenn du ànd ak man di jeng baa ngay daanu man mule jabaru mule mule nga am ci kaw ci kanam rek ñu toog mu ne ma ma mu ne ma man de damaa bëgg dellu Dakar ma ne ko bu sooba yàlla ci barki sama sëriñ bu tedd bi di nga dellu Dakar bàyyiwu ma ko ñu affecté wu ko affecté ko Dakar ñaar ñoo ànd ñu bis. tàccu leen waay. dama leen di wax gëm dëggu bëgg mooy lépp. Ceerno Moulay Sow du alal du dara gëm lekk man lépp lu ma dugg sama ngëm moo ma may man du dox ci lu dul dëgg xale laa mais duma dox ci lu dul dëgg du ànd ci lu dul dëgg man xaw ma dem xaw ma dikk man kër alaa ci Ceerno Moulay Sow laa xamee dem moo tax bi ma jógee pour dem suñu waa dañoo jaaxle si man bu ñoom man damaa jékki-jékki changé jikko fekk du loolu damaa gis li sax may dem te ba ñu gisee ni man sama changement am na sama avantage gis nañ ko ñu topp si ma si li ma bëgg ñoom tamit ñu ma defaraale sama bopp ma defaraale leen ñoom tey damay dëgër damay wax Seydi saw dafa maa dëppali si lu bare bare bare bare lu ma mën a wax naka ak lu ma waxul li ma waxul sax moo ëpp wallaahi ñuy jinne barke alxuraanu karim damaa dem Kaolack jinne yi dar ma barke alxuraanu karim jinne yi dar ma ma leen di gis ba ma bi sama jëkkër di ko affecté euh, jinne dafa ne ma yow danga ñuy déranger moo tax ñu affecté sa jëkkër mu delluwaat Dakar billaay wallaay man jinne dafa ma doon jàpp si loxo dugg ak man biir géej bal barke alxuraanu karim dugg man biir jinne sirène may gis lépp li ci biir géej Ramatulaay Jéey barki démb dama ko woo dama ko woo téléphone xaw ma vocal ma ne boobu sëriñ bi sa annoncé gul 40 ans woon ma ne ko ma ne ko Ramatulaay mu ne ma ma ne ko 40 ans yi jot na li ma ko wax loo sax xaw ma ko ma ne ko sëriñ bi am na 40 ans tey lay toj àdduna barki alxuraanu karim wallaahi damay gis lu bari te man sama ngëm-ngëm moom may loolu barki alxuraanu karim man du ma dox ci lu dul dëgg te du ma topp ci lu dul dëgg alaaji Ibrahima la sax maa ngi moom ba ba may sàngoo suuf nee naa sama jëkkër force mu lemule rek mu lemule ngay doon te mu lemule lay doon ba ba may sàngoo suuf mu lemule lay doon. waay waay ci fula. ah tubarkalla ndeysaan xol sedd na guy ndax li tax xol sedd ndeysaan mooy nag li mu wax dafa am solo lool ndax sëriñ boo ko gëmee dëggu rek mu won la boppam waaw xarjata jeng ndeysaan moo joxe lii nag tubaarkàlla tissu boobu tissu bu rafet bu nooy la ndeysaan baax ci tàngoor wi tubaarkàlla waaw waaw am na solo kii nag moom xam naa ne mule mule yi dinañ ko soxla ndax togg ak yàq rek lañuy def ñoom waaw waaw cey mule mule yi Aminata Jaañ Cees Aminata Jaaju Cees jógal taxawaay ane nga foo ne ah tubaarkàlla ah mu nga nële ah mamaa ñu ngi lay jaar bu baax a baax a baax jërëjëf am na solo ah jàmmalaay la dëkk ah tubaarkàlla jërëjëf jërëjëf waa jàmmalaay la dëkk tubaarkàlla jaaju macha allah jërëjëfati. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi door a ñëw léegi nii dama génnoon. dama génnoon. <laughs> Eh! mon sauvetage, mon clôturé, mon fondation, mon secteur et mon décollège, mon concorde et mon être très bon, très efficace, très agréable, être meilleur parmi de toutes les meilleures, c'est Tcherno Moulin Sow. Sopula Tcherno man jëm man man mi taxaw yaakaar la yow ci coow borom kaanu or bi borom montre or bi borom kurus or bi borom portable or bi laa ilaha illallah xanaa du doomi micro or bi eh xanaa du doomi Adja Mariama Kamara Cerno laa ilaha illallah li ma yore nii Matar neel Cerno man ci sama jël moo ba maa koy sant di ko gërëm di ko ñaanal sant sëriñ bi te di ko ñaanal. man kenn du ma waxal xadi man maay waxal sama bopp man kenn ma waxal maa Thierno sama diggante ak moom dama ne ngelaw bu ci duggee ma sandi la korte ba ëllëg fa sama tànk mu ngi sama saak sorewu ma kenn du dox sama diggante ak Thierno nabbu ma ko ndax doo nëbbatu ya barke Rasuul la nëbbu ko kenn ndax doo nëbbatu doomi aadama yàlla di la gis eh aja Mariama anjibini bi ɗo wuur haa juuta ɓooya wural ma jogi nafa nene ya allah accama ɗo haa juuta ɓooya ceerno ceerno <laughs> mule man duma waxtaan ko jaakarloowa ak man barke rasulullah ɓiya ɓo ñu fanaan ba suba 10 heures ba suba heure bi ah kontaan na je kontaan encore xol bi sedd na xol bi frigo na xol bi congélateur na delluwaatal foofu ceerno Oh, laa ilaha illallah e du ngeen tàccu yéen yéen dañuy ñaan jëwriñ waaw jëwriñ jëwriñ cëccoo eh, Cerno man aw ma sa fay sama dundu àdduna te jéemuma ko it duma ko def yow li ma lay fay yow aw ma ko mënuma ko te jéemuma ko waaye man maa dul dugg ci avion senegal fii te tàgguma la te duma dugg bato tàgguma la te duma dugg oto tàgguma la ndax danga maa defar danga maa jële fu sore man na nag cerno lii fukki junni la maa la ko jox nga jëndee ko ndox suba yoon ci yàlla Muhammad aw ma sa fay cerno barke salaatul faatiha aw ma sa fay su ma naree jooy wax fii damay jooy te bëgguma jooy cerno li ma defal sama doom bi bi gaañoo ba su jonn yàlla ci su ma ko naree wax duma ko mën a wax cerno cocoo taxawal ma ne lii cocoo moo ko jox sëriñ bi ci anniversaire am waaye sëriñ bi nee na joxaat na ko cocoo ci xol bu sedd guy macha allah te cocoo euh, xam nga lu tax nga war a jëlaat lii parce que defe naa ni ci zaahir ak ci baatin lu jóge ci sëriñ bi ñëw ci yow soo fi génnee de dana multiplier wu nekk ay millions yu baree baree baree baree baree baree il faut nga jëlaat ko ndigal la ba pare boo ko jëlee daf lay sauver ci sa àdduna lu baree baree baree bare parce que sëriñ bi li mu def xam na ko Marème Marème Sall euh, maa ngi fàttaliku aussi moom it bi mu ñëwee pour la première fois di seet ci sëriñ bi bi mu ñëwee defe naa fukki junni nga indi mais defe naa ni fukki junni yi tey moo waral lii lépp tey macha allah ah li nga am yëpp ah li tax aussi say mbokk say famille tey nga taxaw di leen mën a teral defe naa fukki junni yëla sëriñ bi delloo woon kon coccoo fa Marème Faye dégg nga nee na naroon naa dund ba dee te am jëkkër dañ ko doon teg ci kon coccoo ah, sëriñ bi jaaroon ak Marème Faye te di yàgg fa jaar ak yow xam nga nag bii paa sax bii dañoo dañoo yokk ci cere ji ñeex cere ji dañ cee yokk ñeex parce que cere ji moom yàgg nañ cee sotti ñeex Amadou Sow kon ndigal la nga jëlaat ko sëriñ bi moo la ko jox ah cocoo di ko jëlaat de ndigal la de di ko jëlaat de waaw ah, waaye tàccu leen loolu waay Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow the king of the king. sa loxo ba ñaanal la keroog bi mu ñëwee. keroog ma ñëwee ak sama jaaxle mu ne ma cocoon ni ma la gisee neexu ma a ko Thierno sama doom bi de moo yóbbu sama xel mu a ma deñ na tey talal sa loxo bi ma ñaanal la keroog laa dugg commencé avion keroog laa dugg commencé di tukki di dem ñëw kon Thierno moom waral loolu moo tax lii man maa ko joxoon Thierno waaye bëggu nga delloo ko. sëriñ bi nee na na nga woowel ko jinne yéegi na yi boloo ceerno muule jinayi fee mm, jinayi kelem mm, jinayi bolo ceerno suyayira ndiitelala suyayiranna ceerno suyayi kelem bolola ceerno jinayi bolo ceerno jinayi bolo ceerno muule jinayi bolo salam aleka jina yive salam aleka jina yigele comment vas-tu jina yigele cerno jina yibolo kumbalamba jina yigele mbolola ruaha jina bigele mbolola wacirno jina yira nitilala soya yira alumaalol ne jina yigele mbolo cerno mule jina yive cerno jinayi gele mbolola mm, jinayi wolo ni dilala suyayiran ni darala jamayira cerno jama bi bolo jama tigi jama bi bolo lamba mm, jinayi gele ndaye ngeen tàccu coco bu baax a baax a baax a baax a baax kon defe Euh, kenn du alaaji Thierno Moule Sow xam nga ba léegi ñu ngi continuer ci cadeau yi Ablaye euh, kii Kamil la Ablaye Diaw bu Tëngéej moo ko jox euh, prince sëriñ bi Ablaye jaw moo jox bi prince bi également sijaada la Ablaye Diaw waaw nee na dafa yéex a ñëw. Hmm. ah kaamil bi romb ma wax dëgg yàlla sama xel nekk ci prince yàlla xam na ne te ñett laa ko jëndee rek ñetti këyit waaw ma jënd ñetti këyit sama xel nekk ci prince ma jënd ko ma toogaa tuuti yoon bi diis loolu moo tax mooy guddee ñëw maa ngi jégal di tuub te maa ngi ñaan saw ñaan ji may sàkku man lenn la nga ñaanal ma comme ñoom Aziz Ndiaye li ñuy dàqee ay nag di ko andi say si màggal tuubaay ma koy andi sa bisu ziar man loolu rek ma lay jàppal sa bisu ziar bi man ak ba abadan ñu ngi lay sant bu baax a gërëm waaw incha allah jërëjëf jërëjëf. jërëjëf euh, Ablaye macha allah kon ñu ngi nuyu waa Dangu di nuyu waa këri suuf euh, alaaji Moto a ngi noonu defe naa ni tey nag comme ni ma ni ma ko waxee woon ci bëccëg c'est un jour historique jour boo xam ni tey histoire dana ko retenir dans la vie. du xalif général di Alaaji Thierno Moule Sow ci dundam macha pour la première fois muy fêté anniversaire am su ne nag Thierno Moule Sow xel yëpp day dem ci ngi juloon somoon nga xam ni c'est à 800 kilomètres de Dakar te sëriñ bi yebaloon ñu fa ñu def Touba def Linguère ñëw Wuro Sogi jaar Nduguru Alpha jaar Sadel Sadel defe naa ku xam dëkk boobu xam ni mooy dëkk El Hadj Ndiaye bu 2STV jaar Sadel jaar Wuduru dem Ngijuloon après ngi juloon Ngijuloon juloon Somone bi ñu fa demee ci diggalu sëriñ bi euh, defe naa ni ñu dem mission bi ñu sëriñ bi waxoon yépp ñu ñu matal ko mooy dëkk boobu dafa amoon lu mat fanweeri jinne yoo xam ni dañu sonaloon waa dëkk bi jinne bi jinne yi ñu ngi nekkoon ci dex bi bi ñu demee également dugg nañ ci gaal dugg ba ci biir. dex bi def ko reportage ci diggalu sëriñ bi nga xam ni loolu xalaatam la ak vision am defe naa ni kooku mooy alaaji Thierno Moule Sow li ma gën a neex nag ci alaaji Thierno Moule Sow maa ngi bëgg a yàgg ci kër gi ci def naa fi léegi cinq ans mais bi may door a ñëw fii bi may ñëw fii euh, avant may ñëw fii dama daan toog sama kër teg sama téléphone di seetaan sëriñ bi guddi ak bëccëg affaire bi yéem ma lool affaire bi yéem ma maag sama ay xarit ma leen yi wax ni lii mënul nekk may wax sama xarit lii mënul nekk ma ne àdduna ba mu daj non c'est la première fois may gis lii non lii mënul nekk jamono di dox di dox xawma sëriñ bi di dox di dox ba yàlla dem ba ñu boole ma ak sëriñ bi may liggéey ak moom may liggéey ak moom dem ba loo xam ni dama ciy teg sama bët di ko dund en direct ma xam ni yàlla suñu borom rek moo mën a maye ngeen tàccul ma loolu bu baax a baax waaye ci li yàlla may suñu borom sëriñ bi nga xam ni man ci sama ay commentaire saa su ne ma ne moom rek la ko yàlla may ci ko suuf ci wàllum médecine traditionnelle du monde euh, muy alaaji ceex lu mu li ma gën a neex nag mooy dafa toll ay jamono internet bi bëri woon coow lool ku ne ku jóg rek dugg ci internet bi créer sa chaîne YouTube ne yow yaay borom jinne yi mais li ma ci gën a neex tey mooy defe naa ni ña doon wax yépp ñoom ñooy boroom jinne yi ñoom ñëpp tey tëdd nañ nelaw fi mu ne nii kenn déggatu leen fi ne nii te sëriñ bi ba léegi mi ngi doxal macha allah doxal bi mi ngi doxal nag mën naa ci jël benn exemple. the king of the king the king of the king Thierno Moule Sow Sow boo jëlee tey le 13 mai wax naa ko sànq 13 1 plus 1 mooy 4 nga jël the king of the king soo ko calculer mu jox la chiffre 4 boo calculer aussi chiffre Thierno Moule Sow la lay jox nga jël 5 bi mooy ko ak 1 mu jox la 4 nga jël Thierno Moule Sow ñetti Thierno Moule Sow yi ak yow mi koy def mu jox la chiffre 4 kon defe naa ni foo jàqee ngay wax chiffre Thierno Moule Sow yi mu ñett yooyu defe naa ni am na solo mooy nag sëriñ bi nga xam ni soo jàqee foo ko woo ci àdduna muy wuy si la leneen li ma gën a yéem nag mooy bi ma nekkee ci wetu sëriñ bi ba léegi dama def remarque Modou Sow sëriñ bi lu mu xalaat rek mu am lu mu xalaat day am su ne léegi dama bëggoon jënd ay baafu balaa suba am ku ko yónnee baafu kooku moo ànd ak borom kun waaye nag dañuy profité aussi di sant suñu yaay ji di soxna ajaratu Mariama Kamara mu nekk yaay joo xam ne aussi euh, yaay boo xam ne exemplaire la Modou Sow ku nekk tey bëgg nga am yaay ju mel nii parce que ku nekk tey bëgg nga am doom ju mel nii alaaji Thierno Moule Sow kon sëriñ bi defe naa ni ñun lu ñu téye ci yow tey du du alal kóllëre moo ñu téye ci yow ak également teraanga ak yëg-yëg bi nga am ci doomu aadama yi ak fonk yi nga bokk ci doomu aadama yi parce que xam nañ dëkk bi bu baax a baax bés bu ne nga génn nit proposé la dara mais àdduna day toll foo xam ni. dañuy wax ci tubaab une relation elle n'est pas matérielle elle est affective yëg-yëg moo am solo te nit aussi dañuy toll foo xam ni bu la jiyee ngor bu la téye même bu nit doon ñëw di la proposé ay milliards yow tu préfères ànd ak moom que ànd ak borom milliards yi kooku nag mooy Alaaji Thierno Moule Sow kon sëriñ bi ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax nga yàgg fi lool benn rek laa xaw a métti lu mooy tey ci suba ba léegi fii laa nekk ci liggéey bi. sànq am benn moment ay vingt heures vingt une ma dem sama kër wallaay la azim sangu ba pare teg sama ay yére war ko sol rek fi ma toog di seetaan télé rek ndekete nelaw naa bi ma jógee léegi ma taal ma téléphone muy trois heures du matin sama soxna nee ma ah doo génn heure bi heure u la te ku xam-xam Dakar am na heure yoo xam ne boo ci génnee man lañ la ma ne ko man kenn du ma agressé jël sama ay yére sol ko xuus ci lëndëm bi dem ba ci tali ba jël taxi ñëw parce que jàpp naa ni guddi gi moom su ma ko su ma ko fekkewul woon tey àllaaxira la may fekk moo tax damay santaat yàlla bu baax a baax ngeen tàccul ma sëriñ bi bu baax a baax a baax a baax a baax